إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi gën a mu sant suñu borom ñoo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaan yu kawe yi moom suñu borom noo ngi julli di sëlmal ci ab yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan suñu borom mu dëkkee dot ci wàllu ñëwal ci kaw yonente boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain bindab tey bi ci taw bi suñu borom ñu ngi amoon yéen def ko ci tombab sifaatu zawjati as-saaliha melokaanu jigéen ñi sëykat ci sunna sifaatu zawjati as-saaliha soxna su baax maanaam la ñuy tuddee jabar jabar ju baax joo xam ne l'islam reconnaître na ak mbaaxam naka lay mel waxtaan bu mel nii jàpp naa ne bu mat di bari la li ko waral mooy ñun ñëpp suñu dundaa aajowoo ak jooyantiwaat léeg-léeg sax dinañu sonn ci jafe-jafe yi nga xam ne moom mooy am ci biir néegi sëy waaye jàpp naa ne bu ñuy wax jafe-jafe yi bokk na sax fa loolu ya mooy ñu delluwaat ca reen ya xam ngeen ni jafe-jafe boo ko bëggee saafara da ngay dellu ca reen ya mën a xam lu ko waral bokk na ci yéen mën a lim ci koy waral mooy ñaar a jubbantiku yaay yi ba mel ni lislaam bëgg ñu mel ni kon azawjatu saaliha jigéen joo xam ne lislaam reconnaître na ak mbaaxam dafa am melokaan bu war a yore melokaan boobu nag ci sunu mawdu ak tey bii bu soobee suñu borom bu ñu wax bu jot lool dees na ci lim ak lëf du caage ni jigéen ji nga xam ni dafa tàmbeegul ci biir néegi sëy moom day jàpp ni moom rek moom moom yëf yi déedéet dëgg la nag bu ñu seetloo moo ci dara ëpp chance jigéen ji nga xam ne tàbbeegul ci biir néegu sëy moom rek moomu yëpp yi donte moo ci ëpp chance ndax ak jekkas ni bu baax la ko mën a jural jagoo wu jit nag jigéen ji nga xam ne moom am na borom kër ba noppi waaye yor na ci ay melokaan donte gis na ni am na yu manqué du moom rek moo ko moom donte ak joyal ci bu la koy jural ki nga xam ne moom mi ngi ci biir néegu sëy waaye ci gàttal bu mat sëkk la la nekk kooka moom mën naa ne moo ko gën a aajowoo yamul foofu waaye bépp baay boo xam ne yàlla war sëgal la ko njaboot bu jigéen mu bëgg leen a teg ci teguwaay boo xam ni lislaam gërëm na ko ba bu ëllëgee ñu mën a bokk ci jigéen ñu baax ñii ñuy lim lislaam ba dafa nekkal leen seen ak baax ndax bu leen fàtte ni maanaam nit ñi naan baax nga baax nga loolu mooy compte li compte mooy lislaam nangul la ko lislaam nag pour mu nangul la ak mbaax da ngay mel ni mu bëgg nga mel ba léegi yaay yi nga xam ne moom xëy na sëy dafa jaboot moom it am na ci wàll la ndax fii faatu ñëwagul dund lu ne mën a sa ko cee jooyal ci fii sëy bi jeexagul lu ne mën na ko cee jooyal ci mu jëm ci suñu boppam ja waaye ñaareel bay njaboot yi ko yàlla dénk mu nekk ka mu rabbee di yarkat mën na caa wane ak njàngale bu am solo boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci alquran ak sunna yemul ca loolu waaye yarkat yi jàngalekat yi muy duaat yi ñoom it mawdoo mel nii danañ ci gis seen bopp ndax dana leen xalaat weneen yoon wuy wane ne kat ndeke mbir nii mu ma jara sonn la ndax yaay ju baax kat li mën a fournir société bi lu rëy la te lu màgg la jigéen nag yàlla ko def mbokk yi mu mat a nekk ku am solo ci dund bi am solo googa moo tax noon yi xeeti yóotu bu nekk jéem nañ koo yóbbu jigéen depuis jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey xam ngeen lislaam ni tàng jàng jàngalee jigéen mel ni ci yar ba ci kersa ga ci gàttal tànk ci orman borom këram yi nga sangam la jaar jigéen la kilifaam la yooya bi nga xam ne noonu lislaam yi gis nañ ko xam nañ ni jigéen jumtukaayu yàq bu mag la jéemoon nañ luñ mën ngir génne jigéen tay réussir nañ ba lislaam bi jàngale la doon nañ def lu ñu mën pour jigéen génn waaye seen pexe yooyu réussir waaye tey moom réussir nañ ndax fexe nañ ba télévision yaa ngi ci biir kër yi fexe nañ ba internet yaa ngi ci biir kër yi fexe nañ ba jigéen ñaa ngi génn fexe nañ ba ñu ngi diir mag góor ñi fexe nañ ba defatuñ ñi nga xamante ni ñoom ñooy seeni borom kër ay kilifa yooyu ay yëpp la yoo xamante ni fi ñu ngi yëngu kon jigéen ci xeeti yàq yooyu nga xam ne def nañ ko ko sabab la ci wax dëgg yàlla jigéen ñi mën a tinoo jur jigéen góor ñoo xam ne mel na na lislaam bëgg ñu mel ni waaye fonk gi war a fonk seen seen réussir bi amatuñ ko mooy ne bu ñu fàttalikoo jigéen ni ku mën a am dayo la ci lislaam comme ñoo ko waxee waaye dayo mboobe yëpp la ko yóbbee woon mooy déggal yàlla ak ko gënante ndax jigéen yiw ga fegu ga am diine ommatul boroomam mu nekk koo xamante ni mboolem melokaan yu sibu de sant yi nga xam ne tey ñi ngi ko koy askanle kenn ñu ko war a jox booba daa fekkoon dafa jokk woon ci boroomam mu nekk koo xamante ni buntu ubbikaay yiw la nekk buntu tëjukaayu safara ñu yëpp ni nag jigéen ñi balaa ñuy soobu ci waxtaan bi am na tomb bu am solo bu bëgg ñu bàyyi ko xel ndax waxtaan yu jàpp na ne ñoom la gën a amal solo mooy jooyal ni ko mel ñu jigéen ñu baax di mel mënta am lu dul ñaari yëpp da caa daje benn ba effort la bu nit ki di def beneen ba ndimbalal suñu borom la effort bi nit kii def xam ngeen ni alquran dafa saxal ni ma yahdi allahu fa huwa al muhtad képp ku yàlla gindi kooku rek mooy ku gindeeku ñaareel bi suñu borom ni wallahu yad'u ila daari salaam wa yahdi man yashaau ila siraatin mustaqim suñu borom day woote ngir nit ñi leen jëm ci kër yiw bu muy tàbbi àjjana tey di gindi ko soob mu jaar ci yoon bu baax bi léeg-léeg wallaay di nga gis jigéen yoo xam ne wax dëgg yàlla waxuma la góor ñi waaye ay morom yi jigéen ak sax dañ koo ñee ndax ni mu yaroo ndax ni mu fonkee sa yëw ndax ni melokaan yu yu am kersa yi ne ci moom ndax ni mu jëfandikoo ba nit ñi sax dañ koy ñee ay morom yi jigéen jigéen nga xam ne li mu mën a soxare soxare morom lépp dana ko ñee loolu da ngay xool moom yàgg da ngay xam ne lii moom li mën a suñu borom kese am na yoo xam dafa mel ni moo nekk suñu borom la boo xam ne moo ko mooy jëmm ji ba mel noonu ñaareel bi nag école la boo xam ne nit ñi daf koy def ndax it léeg-léeg am na nit lu mu yëg ñu ëpp ci moom ñuy defar ak a jooyal bu yàggee mu soppee ndax nit gis na soxna soo xamante ni xëy na mel na war a mel ñu yàq ci di jooyal te wax boobu koy soppeeku jigéen nit dégg na ay kaset déglu ay jàngale waxtaan yu mel nii mu waaru te fàttaliku te suppeeku loola effort la bu nit kiy def ñaar yooyu nag mënees na ko tënk ci benn kàddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ihras ala ma yanfauk mu ne wastaan billah xadis bu yow muslim moo ko solo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ihras ala ma yanfauk lépp loo xam ni dalay jariñ mu ne xëy na sonn ca waaye nag na ngay dimbali ko yàlla baata ihras ala ma yanfauk firnde la bu lay wax ni kon nit ki lépp loo loo xam ne su ko defee dana ko jural yiw wala mu jural ko jooyante ko wala mu jural ko gën a baax wala waxtaan moo xam ne mu ko def loolu mu jariñ ko yooyu dafa war a jug jëm ca loolu mooy effort bi yëpp wastaan billah mooy dimbali ko di nga dimbali koo yàlla ndax nit ñi bëgg naa mel nee na ni ko suñu borom dafa doon jàppandal lu sotti ña ñaareelu njàngale bi mooy ñu xam ni dimbali ko jooyante ko l'islam moo koy wax moo koy dox loolu li ma ci bëgg wax mooy léeg-léeg nga dégg nit ñi ci jiw jiw de jigéen ñi saykat la jiw de ku baax la wax a wax ba yeggal te yow boo ko xoolee benn mandarga muy wane ngërmaande la yàlla du feeñ ci moom loolu nit ñaa ko wax waaye amul solo maanaam toujours dinaay faral di fàttali sax ñoom mbokk yi nit ñi dañuy wax xontu amaa na jigéen ñi ku yaatu la ku mën a teral gan la ku mën a nangam la ku laabee la koo xamante ni ngi reetaan ñu ngi waxtaan ak nit ñi nit ñi yooyu la ñuy sukkandiku nga di la jigéen ñi sëy def la jigéen ñu baax la fekk nit ñi loolu ñu wax xontu maanaam li islam wax moo xontu moo tax tombab ñaareel gi mooy ñu bàyyi xel ni mooy man baaxul salaax balluwaay bi nga xam ni fa la nit di ballee ñu ne ku baax nga mooy mooy ci alquran ak wéri sunna gis nga jigéen lu mën a mel ak lu mën a mel ci sëy su fekkee mooy ci alquran ak sunna na yëg ni mbaax bi nit ñee ko koy waxal rek waaye loolu bu kon sa islam bu dee ci alquran suñu waroon na ne inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwam alquran day jubbanti di ginni jëmee ci li nga xam ne mooy li gën a baax lépp lu ñu sàkk rek li ci gën a baax ci alquran la orienté bu dee sunna yoon si sam gis ngeen xadis ba taratu fiikum shay'ayni lan tadillu ba'dahuma bàyyi naa ci sama gannaaw ñaar yoo xam ne bu ngeen ko jàppee lu ngeen sànku benn bi mooy téere yàlla bi bi ci des mooy sunna yoon bi alayhi salaatu wasalaam kon ci tàmbali boobu ci laa doon ubbee ngir ñëw ci lu xolam mawdu yi ñu tax a jóg mooy sifaatu zawjati saalih melokaan yi nga xam ne day jigéen bu ko yoree nanu yëg ni jigéen ji jigéen lu baax la nanu yëg ni jigéen yi saykat la nañu yëg ni jigéen ju ragal yàlla su dee jigéen bu amul borom kër la kooku warees naa mën a daw jëriñ ko su dee jigéen ji ku am ba noppi borom këram wër na ko gën a téye ci ay loxo su dee góor bu yore ay njaboot la yu jigéen war na caa tàmbali nag yor ay njabootam su fekkee way juru jigéen la it war naa commencé jooyante ak njabootam ca loola maanaam sax même ñi fi jiitu woon sunu maam yi sunu yaay yi même bu ñu jànguloon lislaam sax amoon nañ benn phénomène bu baax bu mu doon def léegi dafa dafa xew yi mooy famille boo ko demee ki ñuy tuddee bàjjen daf doon suy rôle bu am solo boo xam ne moom bii kii bàjjen mooy kooku nga xam ne mag mu dem ba dikk la sëy ba xam li ci sëy gis lu bari romb lu bari gis ñi tekki gis ñi tekkiwul gis ñi daan boyee seen borom kër bëj bu ji gis ñi daan fonk seen borom kër di leen sukkal ka tarbiyu bët mujj ah mu nekk ku ñu yow kooka ku mosaana am jafe-jafe ci famille boo ñëwee ci moom bu la xelalee ba bàyyi rek day mel ni baax bu ñu daa sax rek du grand baax kooku bu ko mosaan a jege jigéen bu mosaan a xelal ne ci fay wala li ko li ko nun boo waxtaanee ak moom rek sa xel lu dul xalaatal lu mel noonu da ngay jël sa sëy kaw kooku jigéen bu mas a fay fekk ko ci kër boo yegsee rek du la may boo yeggee sa naka da ngay delluwaat kooku jigéen daana am jafe-jafe ci biir néegu sëyam sax danga koy ragal wax ndax lépp bu amee dëgg sax day xam ni kooku du ko faral waaye borom kër gi lay faral li may wax nii bu ko xoolee yow bu ban nga xam na amoon na dafa commencé xeewi nag léegi léegi li mu xeewee ca bàyyi doo ko jural boobu du aat yi waxtaanee ñu lu mel nii yaay yi defatuñ ko lam ñu jural mooy lam doon defar lépp ñu ne mi ngi tàmbalee sax mi ngi tàmbalee yaa kon jàpp na li musaarama la rëy boo xam ni ñu ngi ñaan borom mu defal na ci taw bi li ci la génne ci ay njàngale suñu borom barkeel ko ko jëlee la ci njëkk ci melokaan yi jigéen yi sëykat mooy la yàlla wax ndax alquran day jiitu lépp te incha allah tom bu ñu indi am na tegtal ci alquran moo xam ne moo xam ne ñu yàlla la wax suñu borom day wax ci suratu nisa fassalihatu qanitatun xaafidatun lil ghaybi bima xafidallah melokaan bu màgg boobu bu alquran njëkk a joxe ci suratu nisa ci laaye fanweer ak ñeent su borom mu ne fa saalixaatu jigéen ñi saykat dëgg jigéen ñu yiw ñi fa saalixaatu jigéen ju yiw qaaditaatun jigéen juy nangoo jaamu yàlla lay doon tomb bu njëkk bi ci aaya ji mooy alaaka bi dox diggante nit ki ak yàlla bépp jigéen bu ñu la jigéenu sëykat la te du jaamukatu yàlla l'islam reconnaître loolu lu am solo boobu war a bàyyi xel jigéen joo xam ni fa gën a tarbiyu mën koy defal borom këram waaye du julli du jaamu yàlla nekkul jigéen ju yiw yëgal ne loola nit ñaa ko wax waaye lislaam moom wa tax sunu borom ni fa saalixaatu jigéen ju yiw xoonitaatu jaamu fatu yàlla loolu doon mooy koo xam ni boo ko fekk mi ngi sàmmante ay faratam ak ay naafilaam mooy koo xam ni boo ko fekk ma ngay góorgóorlu ci lay gërëm loo suñu borom mu necca ndax xam ngeen ni ku lànkal suñu borom mën na la doon jaar mënul nekk de déedéet topp bu am solo ci wax lu mat a bàyyi xel léeg-léeg dina ci jigéen mu ne ah jiw bi moom sëykat la jiw bi nangam ñu bëri këram nee na lii moom kay bu ci bëccëg ak lay wax ñu nangam moom de goree nee nañ gis nga yooyu wax te boo xoolee ndaw si yow gis ko du jaamu ak yàlla jàppal ne kooku moom islam rek lay doon ko parce que suñu borom ne fa saalihaat jigéen ñi rek lay doon ak baax muy jigéen saykat dëgg foo ko fekk mu ne xaari daatun jaamukat yàlla lay doon kon borom bi subhanahu wa taala mu ne jigéeni saykat mu ne xaanitaat day nangoo nekk ak jaamukat yàlla moo tax jigéen bu la gën a nangoo jaamu yàlla yëgal ni moo la ëpp cër ci bunt bii nekk ak saykat kon loolu moo lay wan ni kon bala ñuy jëm diggante nit ki ak borom këram dañuy jëm diggante nit ak borom moo tax benn borom xam-xam bu xereñ na koy wax ni bépp jigéen joo xam ni fonk da nga war a fonk sa borom ak ni nga ko war a jaamoo tarbiyo ko jëfoo ko mu ne saa bu la ko nit ñi waxalee ci sa borom kër yi loolu kon islam moom déggul loola ñaareelu topp mooy sunatuha bi baaliha lan séq ak borom këram mooy xaafizaatun lil xayb day sàmm kóllëre sàmmul fànn ci borom këram ay di lu ci yim mooy bu dee da nga seetlu diggante nit ki borom su borom nga ni jaamkatu yàlla rek bu jeex waaye boo gisee relation yi nit ki séq ak borom këram nag ba ca lislaam taamu présenté ko ne bii moom doy na mooy xaafizaatun lil xayb mooy day wattu borom këram ci boppam bu fi nekkul wattu borom këram ci alalam wattu borom këram ci ay def defam ak i dugg duggam ak i génn lépp lu fàttu loo xam ne sa borom këram fekkewu ko rek ndaw si moom bu borom këram fàddoo seen gi muy seen borom bi cër mooy waral day mel ni borom kër gaa ngi yow gis nga jigéen ji la gën a mën a sàmm loolu moo la gën a nekk seen ndax la koy waral mooy am na ñoo xam ne seen ak góorgóorlu góorgóorlu mooy seen borom kër a ngi teew waaye bu seen borom kër a fàddoo moom ñoom seen ak góorgóorlu jeex na kon xoolitaat mooy taxaw ci farata yi sunna yi waaye xaafizaatu lil gaybi bima xafisa allah mooy mbir yi nga xam ne suñu borom daf ko wattulu nañ ko sàmm mooy ndaw si du sàggan ci boppam du sàggan ci alal yi borom këram tey sekkere yi dox ci digganteem ak borom këram ci ñoom ñaare gis nga même jigéen joo xam ne melut nii bu ko nit ñi jox ne jigéen saykat bi nombar jàll yow bu ko kon ndax lislaam mu kon bokk na ca la koy firndeel di wane ne déggal borom kër gi kat lu suñu borom jox fulla la mooy xaditam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy xaditam abi hurayra mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ida sallat il maratu xamsaha jigéen joo xam ne julli na julli juróom yi na mu waree wa saamat shahraha mu woor weeru koor nam nañu ko santee wa xassanat farjaha mu téye boppam ba ñu caaxaan ak beneen góor amul góor bu am accès ci moom bu dul borom këram wa ataat baalaha mu topp jëkkëram ci li mu koy digal yéen yàlla bi nee na dañ koy wax ni ko daxalat bu boobaa daxalat il janna daxalat min ayi abwaabil jannati shaa suñu borom nga naa ko buntu àjjanaa gi yéen yëpp yéen leen ubbi yow nag yaay tànn buntu bu la neex rek fa ngay caaxaan bi àjjana allahu akbar mbokk yi gii garanti day góor gis nga xol ni mu toll ci yëg yàlla ak ngëm noonu lay toll ci jëm di teg si ci alquran sunna loolu mooy lan mooy amal na lii ñun buñ ko déggee sax duñ ko jox benn yi jëfal waaye ñu njëkk ñi nga xam ne seen defar boo gën a mat suñu defar ñoom bu sax buñ ko sax dégg lu mel nii teg si yu mel nii dañuy jàqale ko seen saako jigéen bu jullee julli juróom nga ne waaw mu ne mu woor weeru kooram nga ne waaw mu ne mu sàmm boppam nga ne waaw mu ne mu déggal borom këram xoolal mbir yoo xam ne ba sax juróom soo ko doon wàññi tey sa juróom baaraam yi ñu bees ñeenti mbir la yonent yàlla bi nee na bu ko nit ci sàmmee dañ naan ko tàmbil ci àjjana ci ban bunt nga bëgg a tàmbee rek ñu daalal ko fenn loolu jàpp naa ne mbokk yi jigéen ñi ko dégg de su dee ngëm yàlla am na wàccuwaay bu bat ci xolam la muy tàmbalee yit ci woo mooy léegi nag lan moo tax ma fonk julli fonk woor ngir jëm loolu ci lépp suñu borom la sànkanee topp sama borom kër te moo ne fa la yàlla liggéey ngërëm boo ko toppee foo mën a liggéey ngërëm boo toppee sa borom kër gis nga moo tax ñàkk jëf ci diine dafa yóbbee nit ki ay jël yu réer yi ndax ki nga xam ne ñu ngi sàmmante julli nga xam ne yow moom wax dëgg yàlla loo sàggan sàggan sàggan ñi ma sàggalee julli loo sàggan sàggan ñi ma weeru koor jot dafa ñu woor kon xoolal jigéen ñi yooyu fan ko teg ak nit bu kaweelee xanaa xamul ni fan ko santee loola jigéen ko ko yiw fi leen ko santee sàmm boppam ak déggal borom këram jigéen ko ko yiw loolu dañ si bàyyi xel baax a baax maanaam foog sa borom kër déggal ko dafa war a mel ni julli ci yow julli lan moo tax léeg-léeg ñu fekk ñaar yoo xam ne ñoom lañu yoonalandoo ñu tolloo martaba ba pare ñu yëkkati benn ñu wàcce ba ca des fan yoonalee nga julli ñu bay la yoonal ko nga woor ñu bay la foofa lañ la waxee nga topp sa jëkkër ñu bay la kon saa boo watee gaa ngi boor yëgalee da nga am dégg ci lii loolu li ma ci bëgg a wax ci gàttal mooy jigéen ji nga yëg ni topp borom këram valeur bi mu am moom la julli am moom la woor am soo noppee nag yow sa séddal bopp yaa ngi seet nag bu la neexee nga yëkkati ne wàcc bee waaye yooyu moom lañ tollale ci sax kon jigéen ji war naa bàyyi xel bu baax rawatina jigéen ji nga xam ni dafa bëgg lal ak laytaay bu dëgg te dëgër ngir fonde ab société moom bu yàlla di gërëm la te ñu ngi tàmbalee ci doom ak borom kër ak soxnaam mu xam ne déggal borom subhanahu wa taala mooy tomb ci jiitu waaye déggal borom këram muy ñaari tomb ba ca topp bokk na ci yooyu mooy nit mu yëg ni sàmmonteeg julli juróom yi sàmmonteeg woor yi sàmmonteeg jaam suñu borom yi yooye mi ngi tolloo déggal borom këram waaye mi ngi tolloo nangu ko ay liggéey wàcc ay jëlee bokk na ci tomb bu jëlee mooy wax xamne ba farja mooy mu sàmm boppam gis nga jigéen moo xam am na borom kër moo xam amul borom kër bu mu ci mën si doon na yëg ni sàmm bayam ci boppam dafa bokk ci li koy jox valeur bu benn góor di góoru jàmbur am accès ci moom moo xam laal ko moo xam jege ko moo xam jonjon teg moom moo xam yén ci wet ma kenn yëg ci yëg na mag muy mooy yàlla ya kon ab balluwaaye boobu boo xam ni jigéen ñi war nañ cee bàyyi xel mooy nit ki fexe ba am ngërëmal borom këram ndax loola mi ngi tolloog jaamu yàlla yi nga xamante ni moom moo gën a rëy loolu nag wuuteeg lool nit ñi li ñuy gën a fam ay matériel yi àddina naa am lii naa am lan naa am lale fekk yooyu am na ñu gën a am solo yëpp gën a am solo mooy sama borom kër gërëm ma ndax matériel yi àddina yooyu boo ko dajalee tey taxul nga tàbbi àjjana déedéet taxul nit ki tàbbi àjjana waaye ngërëmal suñu borom moom saa bu ko nit ki amee la ko jël di jural muy tàbbi àjjana moom lay am kon ñu ngi ko dina ko amee ci topp borom gërëm bokk na ci lay wane déggal borom kër mooy fexe yombal say mbir yëpp ci sa borom kër tàmbalee ko ca commencement yéen yàlla bi nee na xayrul nikaaxi ay sal sëy bi gën ci sëy yi mooy ba ci gën a yomb kon bépp sëy boo xam ne looy tàmbali joxe leen ca alal du dul jeex boobu sëy daal wax dëgg yàlla mën naa gën a baax yéen yàlla bi nee na axdamu nisaai barakatan aysaruhunna mumunatan wala mamunatan jigéen di gën a barkeel ak sëy mooy jigéen di nga xam ni moom la ay waru garam gën a néew xoolal boobu échec rek nga xam ne ki day tàmbalee soobu ci déggu sëy rek échec xar te xam nga aw yoon kay boo déparé rek jàpp kay yow xam ne loolu yëpp mën a jëm jigéen ji nga xam ni warugal yi mu waral ci moom dafa dañ ko yombal loola day waral yàlla def participation participation barke ci sëy bi looloo waral yaay yi xam lu mel noonu bàyyi ci xam lu mel noonu bu njëkkoon gis ngeen nit ñi dañ daan yombalee sëy da ngay gis koo xam ni sa waay du am dara waaye diine jàng ngëm yàlla da moo koy may soxna da ngay gis koo xam ni moom ak alquran moo ko doon may soxna kee am xam-xam moo ko doon may soxna kee mën a dem jàkka moo ko doon may soxna maanaam nit ñi dañ daan xool ba gis say jikko yu rafet ak say mën a jaamu yàlla ñu may la soxna léegi nag moom say poche yu diis wala say bien wala say kër wala say nangam mooy tax ñu may la soxna moo tax keroog ba yëpp yëpp gëj a am keroog la bàcce bi gëj a am kon bokk na ci melokaani jigéen yi yiw mooy jigéen joo xam ne day jéggal borom gërëm loolu tomb la mais yenn tomb yi koy laalaale ñu ngi si biir incha allah ñaareelu tomb yi ci war ne jigéen ji jigéen yi sëykat la mooy jigéen lay doon joo xam ne boo ko fekk mi ngi foglu di bàyyi xel seytaane lu garaawoon loo tomb yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dani seytaane mi ngi teg pilyaanam ci loxo su xëyee dafay yabal ay sondaaram leen dem leen ngeen yàq ku ñëw wax ko njombe gi mu def mu ne ko waaw góor ba kenn ñëw ni ko fexe naa ba jeqale diggante jëkkër ak jabar seytaane kontaan ca kooka ni ko ant ant yow yaay waay yow kay yaay bonkal ant ant mooy yaay bonkal bi tey loolu li ñu ciy déggee mooy kon saa suñu xëyee suba seytaane yabal na ay junni junni junni soldat pour ñu dugg suñu biir kër yi pour teqale ñoom suñuy soxla jigéen ñi dañu yëg ni saa suñu yeewoo seytaane yabal na ay junni junni soldat pour teqale leen ak seeni borom kër jigéen ñi say yëpp dëgg saa su yeewoo rek mi ngi préparé loolu préparation boobu jigéen ñu bare bare bare xamuñ ko sax ba di bare su ko defee loolu waral na imam Ahmad nee na gis nga bu waaj jigéen ni ko fexe naa ba jigéen jëkkër ak jabar yàqoo nee na da koy kot jege ko toogal ko fa mu toog ni ko yow mii nag yaa def liggéey bi tey mooy yow mi teqale jigéen ci jëkkër ak jabar foofu nag jëkkër ak jabar dama cee yim rek moo tax ma tudd ko waaye tekkiwul ni jëkkër ak jabar doom ko tax a yow bàyyi ak doom jëkkër ak jabar yaay ak doom xarit ak xarit ay wëllëre ila axiri yi maanaam bépp ànd boo xam ni ànd ak seen diggante yàlla seytaan da koy bëgg a yàq waaye xam ngeen ni ndax xam ngeen ànd bu gën a dëgër bi yow si gën a jabar kon ànd yëpp di ko ci gën a yitteel mooy diggante jëkkër ak jabar ndax xam na ni yàqu boobu nag yeneen i yàqu dañuy topp xam nga xel soo mën naa yàqu après la day yàqu war ko bàyyi waaye gis nga borom kër ak soxnaan su teqali koo am goro yi am ca wàll doom ci am doom yi doom yi am ci wàll mbokk yi am ci wàll say frère am ci wàll moom ay frère am am ci wàll say sœur am ci wàll ay sœur maanaam mbir la moo xam ne boo seet loolu teqalikoo yi moo ci gën a garaaw moo tax seytaane moom lay gën a yittewoo ci ak yàqam kon jigéen ñi saykat dëgg bokk na ci ay melokaanam mooy day bàyyi xel porte yooyu ko seytaane mën a yàqaal léeg-léeg jigéen wax loo xam ne fekk seytaane moo ko waxoon fekk dafa bu seytaane moo ko yàqal léegi sa borom kër ni la toogal wala toogal nga daan def mu fi ku mel gis nga borom loolu yi seen soo ñëwee saa bu yegsee rek jigéen ñi say dëgg dëgg ci bàyyi xel day xam ni borom loolu yi yëpp benn bu ci nekk occasion la pour seytaane yàq sama jigéen ci ak sama borom kër bokk na ci la koy dimbali nag mooy muy ñaan yàlla waaye muy def tax sëynaat yi buy génn dem marché du fàtte ñaan marché jigéen say kër noonu lay ñaan buy génn këram day ñaan ñaan génn kër buy dugg waxi noom buy togg waxi noom buy ànd ak borom këram dana ñaan ñaan sunu ba allahuma jannib shaytaan wa jannib shaytaan ma razaqtana yéen yàlla bi nee na ñaar ñi ànd bu ko waxee ci sëy doom bi ñu am seytaane du ca am waa ak boo seetloo tey lu néew ci ñi koy def kon bokk na ci buntu li nga xamante ni maanaam jigéen ji da koy bàyyi xel mooy fagru ci yi nga xamante ni mooy pexe yi seytaane mën a def ba mën koo yàqal digganteem ak borom kër boo seetloo day saa léeg-léeg da ngay gis seytaane jaar ci diggante yàq ñoo ne teqali moom sëy ba tas na doom ya tasaaroo na askan yi kenn ku ci nekk yaa ngi jàppal nga yéen sa morom fekk lu lépp liggéeyu seytaane la waaye tàggante jigéen ñi la parce que dafa waroon jël ay matukaayam ci noonam def su ko defee ci bunt boobu boo teetloo seytaane ñii jigéen bi yum ji di bàyyi xel ku jar a bàyyi xel xam nga lu ko waral mooy boo teetloo société àddina bi da ngay gis ñu ne am na cinquante ans d' expérience nit ñi ne ah kii de kon wax dëgg yàlla am na cinquante ans de ko ba am expérience ci nangam kooku moom gànn la waaw iblis moom jaay-jaay gi muy def expérience bu jàpp ñaata junni at la ñaata junni at xoolal yàlla ba mu sàkkee bay aadama wàcc ko wàcc wàlla iblis ba tey ñaata junni junni junni ci ay at moom expérience bi mi ngeen ko bari waa na ñu nërmel am na ñu jaaxaalal ñii mu tax seen sëy ñii mu jox seen si diggante ñii mu tuural bi seen i deret kon man def mu man caay caay la kon jàpp naa ne jigéen bi bàyyi xel gi mu koy bàyyi xel kooka ci buntu yii wane ne moom ñii kat nar naa nekk jigéen sëy la su ko defee ci buntu boobu léeg-léeg seytaan da lay dikkee ci wax léeg-léeg mu dikkee la ci tontu léeg-léeg mu dikkee la ci ñu digal la nga bañ léeg-léeg mu dikkee la ci ñu ñu tere la fekk léeg-léeg léeg-léeg xam nga nit ki mën nañ ko wax sax bul dem saytaane ñëw na la waaye yow kii nga laa jur kii nga laa moom mën na laa tax mën na dina teqale say bopp mën nga saa mën a damay def ne bu la damay def yooyu mu ne saytaane fekk xam nga ñu seen waswaati xam naa allah bi yu wax si si suuri naa mooy da lay bàyyi ba nga wér yu wax si su ma commencé ñëw na waaye kii nga laa moom kii nga yu wax si su mooy xaj xajitul nas day jékki-jékki di la wax ci sam xel waaye kii nga laa nangam kii nga laa nangam nangam waaye sa morom yi dund di ngir na pële waaye kii yaa ko may sax li nekkee gis nga yooyu seytaan di la ko wax dawal nga nga xam ne saay saay ngay saa bu yu mel noonu yegsee ina inna alladina taqaw ñi ragal yàlla dëgg ida massahum taifu min asheytaan tadakkaru saa bu leen seytaan daree dub rek fexeel leen rek ñu fàttalikuwaat njàngale yi comme lu mel ni waxtaan yu mel nii wala aay yi tafsir wala hadis yu jàngoon saa bu tolloo ci occasion yu mel nii rek sa xel dem ci la ma déggoon di wax ko wala suñu wax wax ko wala yeneen di wax ko wala borom xam-xam ba wax ko loolu daan lay delloo si waat sulaate waat la si nga xamante ni mooy say dëndën kon bokk na ci melokaan yi nga xam ne daañu ko tànnee jigéen yi saykat dëkk mooy idxaalu sururi ala zawjiha ida nazara ilayha jigéen ñi saykat dëgg jigéen lay doon joo xam ni foo ko fekk mi ngi préparé nan lay dugalee mbégte ci xol borom kër loolu waxu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi nee na dañ koo laaj xadisu abi ibrahima ñu ko ayu nisaai xayr waaw jigéen ñi nga gis jën jigéen la ci gën mu ni allati tasurruhu ila nazar mooy jigéen joo xam ni saa boo ko xoolee rek da ngay kontaan xool ba soxla kontaan na jigéen ñi dañu xam ne du mën a solo mën a suufee koy dem ci déedéet ndax bët du kontaan bët day kontaan luy kontaan ah xol xol mooy kontaan maanaam bët ndaw la dañ koy yónni gis nga solo suñu ci jumtukaayu kontaanloo borom kër la waaye jigéen ji kontaanloo borom kër la xam ngeen muy jigéen jat mooy jigéen ji sare jigéen ji sare safar mbaay sax jigéen ji soof gis nga jigéen joo xam ni saa bu ko borom këram xoolee kontaan joojaay jigéen ji sare jigéen joo xam ni saa bu ko borom këram xoolee du kontaan joogaay jigéen ji soof tey nag sabe gi la koy maye du solo suñu kese ah waaye la koy maye ay jëblu yu kontaan loo xol waa ja nee na soxna si xudil afwa minni tastadimi mawaddati wala tantiqi fi tawrati xiina aqribu wala tan tan tanqurini naqrati duffi marratan fa innaki la tadrina kayfa almugayabu ولا تكثر الشكوى فتذهب بالقوى ويأبت قلبي والقلوب تقلب فإني رأيت الحب بالقلب والأذى إذا اجتمع على الجنة الحب يزهر waxtu am solo ko waa ji mu ne danoon waxtaan ak soxnaam benn bis mu ne soxna sama mu ne ko naam mu ne ko gis nga lépp loo gis mu bàyyi ko ci man sa borom kër di ay erreur wala ay def def te neexu la bàyyi ko jéggal mu yoon jàll bàyyi ba bàyyi na mu jàll ndax góor ay sàrgam dafa bari léeg-léeg kon mën naa jàpp kon jàppal ko ngànt ci sàrgam yu bari nga di ko pardonné lu bari gis nga loolu soo ma ko defalee waa ji rafetlu na gis nga loolu soo ma ko defalee cofeel gi man am ci yow bëgg la gën a gëm di continuer te saa su ma la xoolee dina la kontaan nga xam ne dana gën a neex nga juum nit ki yëg ni juum nga ba noppi mu baal na ko xol seen buy ngir continuer loolu day rusloo góor mu ne ko wala tantiqi bul ubbi sa gémmiñ fii tawrati yi nga xam soo yëgee damaa mer bay wax bàyyi rek ma wax ko sama xol seen waaye bul toll koy rek man bokk na ci li gën a mën a merloo góor mooy jigéen juy topp jigéen ji gën a porox làmmiñ mooy jigéen ji gën a mën a topp moo tax it moo gën a tëree jur doom yu baax lii may wax nii nag expérience ak xam-xam la xam-xam ko sax waaye du ay doy gis kese boobu mu ni soo yëgee ni mer naa maa ngi wax bàyyi ma wax ba jiibal nga bàyyi rek ndax loolu mooy nangu ak kilifteef bu nekkoon nga daan gis jigéen yoo xam ne borom këram da koy tiit sa way wax ba sàmba ah ma demaa ngi déglu ma demal baax su ma ko xamee woon loolu rek waaye du wax benn baax waaye tey moom yaakaar naa ne gis nga jigéen ñi am na ci ñoo xam ne pour la tontoo boo amee rongal ñu jël su ko defee yooyu day màtt xol gis nga yu mel noonu nag léegi góor gi day màtt xol léegi bokk na ci danger yi gis nga guddi yu mel noonu gis nga jigéen bu yëgee ni mer loolu borom këram sax wala nan borom këram di seeg moom lu dangereux yi loolu gis nga tey ci ci misaal tey ci ngoon gi nii nga jotee sa borom kër ba xanaa leen nga fexe ba kontaan loo waat waaye biir mer moom a ngi ci moom jiibul loolu sëy ci sa borom kër sax wóoru borom xam-xam yi dañuy wax ni maanaam silib ci boppam dafa xoor tey doomu aadama ci silib lay sëyee deret day daw ci moom te deret bu bu fekkee nit ki dafa mer si di dina jóg yooyu ay xeeti mbir la yoo xam ne bi ko seetloo nit ki bu ci amee doom bu ko yàlla dimbaliwul nit doom dafa naa bay xel na yu bare bare ngi nii tey nga koy jéem ci kaw rek du mu xam lu ko waral fekk affaire yaa nga keneen yi fa nga kattaaxoo mu ne ko wala sant xëy bi kaw rek si xëy naa ko su ma melee moom feneen noo ma kontaan loo bul ma jéem di ma bëgg di ma sonal di ma teg ay jafe-jafe nga xam ne góor boo xam ne yàggal ci mu wàcc sax dem këram ndax problème yi dul jeex mu ne bul ma ko def wala tam xuru yi naqar ci dukki marata bul ma tiim di ma tàgget loo mel ni borom xamal ni tiim damay bëgg fa innaki la tadri na kay bal mu xëyew mu ne tey damaa xëyoon xamoo lan fa ma demoon xamoo aatale nañ ma xamoo jànni nañ ma xamoo tax gis naa daal xamoo la ma doon wuti gis naa seen direction xamoo ndax dépense ak suma ngi sans poosam gis nga léeg-léeg da ngay def góor lu ñàkk fayda sa way mu mer ci buy dund di fekk moom sax li mu mer dee du mer waaye problème mooy dafa am lu ko jiitu maanaam moom buntu merukaayam daa sànne wu woon ba des un pour cent xaw ma xam ngeen li ma wax de maanaam góor léeg-léeg day mer meree beneen sànne mer nag ba des un pour cent benn baar bokk nga ne benn baar mu dese benn baar nga xam daanaka fees na gis nga benn wax bu ñàkk fayda bu jëlul mer la ko soxnaan di wax rek mu jëlul ko yëpp même moom mu paree dana xam ne moom lii mu doon coow jëlu coow waaye jigéen ñi nag gën nañoo mën a ko gis nga jigéen ñi ñor dëgg dëgg dëgg mooy jigéen ñi xam borom tëral boo xam ne wala ko jàkk rek xam kii kay dafa amul métti wala dafa sonn wala dafa jaaxle wala weer weer sori yooyu yëpp day demee ci góor ñi de laaj leen kay xam naa li ma leen waxal arrangé na leen lool de loolu lépp day feeñ ci ci ci nit weer wu sori day feeñ ci yow ah ñàkk dépense day feeñ ci yow am ay problème day feeñ ci yow li jëm ci sottu day feeñ ci yow yaakaar nañ tey laay bayeeku sax dem bayeeku bayeeku woo day feeñ ci yow gis nga yooyu nag maanaam jigéen ji bu fekkee jigéen sëykat la dana la accueillir accueillir noo xam ne loo ñëwee rek te gis nga jigéen dëgg dëgg moo war a nekk expert expert mooy saa bu xëy rek su ma nee jàpp ku góor ñi danaa xam kii ban genre la defe naa xam na xisam mooy faral dégg ko ma xasamul ban naa leen koy ci ko ma kenn ci ñoom ci borom xam-xam yi di wax ne yaayam la daan wax ne saa su ma yeewoo xool la rek damay xam ndax tey lislaam mi ngi ci jàmm wala amul jàmm mu ne ko noonu la mu ni su ma ko xoolee gis kanam daal di triste xam ne dafa déglu information xam ne jullit ñi dañu am problème waaye su ma ko xoolee gis kanam daal di bélbélé rek mooy damay xam ne kii moom tey dafa déglu information bu neex noonu la jigéen ñi war a mel nekk expert maanaam borom kër gi saa boo ko xoolee rek war a xam lu xew waaye déedéet am na koo xam moom dëkkaa tam sax ba yëkkati loolu wax moo tax it jël yi ñuy am ci bunt boobu di daal di di di ci daal di bari kon jigéen ji war naa tàmmal boppam déggal borom këram nangul ko ci lépp ay ndigleen yépp waaye mu bañ a nekk jigéen du rëy wala jigéen ñoo xamante ni boo koy sant muy kuñ kuñ yi ndax santaane boo xam ne da ngay kuñ kuñ yi doo koy def xam nga li sa mut kalam sant amut neexee déedéet waaye gis nga nit ñi muy tarbiyoo ci say bi koy jàngal nu ko raw noonu la jigéen war a tarbiyoo ci borom kër nu ko raw noonu la jigéen ji war a tarbiyoo ci borom kër ma al asabi shadid léegi dañ lay wax ni sa morom laag sa nangam laag sa nawle laag ila axiri yi fekk déedéet du sa morom de waaye nee na dañuy soxna si ba mu ba muy dégg doon de dani ko soo demee nekkal dàll mu ne tong ci sa kaw nekkal kawar mu nekk mbaxane tong ci sa kaw nekkal ndab mu ñëw kubéeru ci sa kaw nekkal suuf mu nekkal asamaan noonu la da nga koy def mu nekk sang loolu moo waral gis nga ci dëgg la borom kër nit ñi bu njëkkoon boo seetloo daanaka nit ñi daawul sàllalu sàllalu seen borom kër bu njëkkoon yaru mag yi daawul sàllalu seen borom kër déedéet saa nijaay saa alaaji bi sang bi saa njaatige sëñ bi sama kilifa gi maanaam façon baat yoo xam ne day wane ni kii moom mokk mukk la waaye loolu léegi tey bu la wooyee sax sa pilule la tuxit yow xam nga yooyu lii du ay mbir yoo xam ne ay nit a ko keneen lii mooy lislaam lii mooy lislaam lii ñoon ñii doon def ndax dafa bokk ci sunna jigéen di bañ di tàllaw lu borom parce que loolu dafa bokk ci suul adab mooy mag ñàkk yàlla su ko defee yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam jigéen ji nga xam ne moo gën ci jigéen ñi mooy koo xamante ni boo ko xoolee kontaan boo ko digalee mu topp la mu dem gis nga jigéen fii yëpp li ko borom këram digal du mooy yàlla dafa war a def fii yëpp du mooy yàlla laa wax dafa war a def waaye nag tey moom góor ñi xam ne ni daanaka maqaama yooyu mu amul ko moom moo tax it la ma wax ca waxtaan woowa di wax ci lan moo tax jigéen ñi war a doon jur yu baax yi bokk na ci facteurs yi tax jigéen la mu bëgg a jur du ko mën a jur nga xam ngeen chance bi jigéen am pour jur lu baax chance boobu pour am parce que jigéen mooy yaay mooy nàmpal mooy gën a yàgg xale bi reen yi moo koy moo koy suuxat maanaam formation première formation bi moo koy def ci xale bi kooku chance bi mu am pour régler situation sëy ba génne imam génne borom xam-xam génne kilifa diine loola góor la yéen ma gën a xam ni xam ngeen ni tànnikat yi soxna yi dëgg dëgg dëgg saa moom bàyyi defe naa xam ngeen loolu tànnikat yi sox d'accord dinañ ko tax waaye nag tax bàyyi taxul noonu jublu maanaam bañ doon tànn soxna bañ naan jigéen ñi bala nga koo labat biiseel ku yaayam xam nga ni biiseel ku yaay waaye biiseel ku doon kuy bàyyi doom kon yaa sa waaye affaire yi dana baax ndax bàyyi bàyyi mën naa am bàyyi yoo xam jàmbaar léeg-léeg am bàyyi yoo xam ne ni jàmbaar la waaye yaa jël rek ba tabarakallah sallallahu alayhi gis nga kon la lay viser jigéen ñi la pourquoi bàyyi di jàmbaar yaay di jàmbaar ñëw di viser yaay bàyyi bàyyi pourquoi bàyyi nekk ab waay yoo xam ne ab waya waya wala nii waaye yaa ngi nekk jàmbaar di ko bari ñu taamu doomam pourquoi bàyyi nekk jàmbaar loolu yaay ji nekk ab waya waya ba pare ñu lan bañ faa def lu tax parce que nga xam ne réew yi dëgg dëgg dëgg ci yaay jël ëppee jeexantal bi sa bàyyi ci kon déggal ko bu la santee loolu nag tey xam nga dañoo xam ne ci jamono ko moom mondialisation ko moom égalité góor ñi jigéen ñi nañ ñamat fu góor taxaw jigéen war na faa taxaw ëppale góor gis nga yooyu te kaay ma xamal la ñaar nag mais boo ci dégg ci xel gi dana la xeeñ de xam nga am ngeen li may wax xam ne gis nga yàq par ko wane sor bee gis nga soo bëggee mucc ci eret suñu borom soreel fan koy taalee xet ga moom la xëy soreel rek moo gën a wóor waaye gis nga ñun fi mu ne société bi ñuy dund même suñuy jigéen buñ gëmul loolu fi mu ne nii mi ngi def ci jeexital ci ñoom min xaytu yadrul aw laa yadrul lu tax ah yow nee nga lii baaxul doo ko lekk ba pare ñu ngi koy toog sa fekk affaire baa ngi lay xeeñ ngay melas di ko rek yaa boo dee lekk doon tey mi ngi def ay jeexital parce que jigéen ñi dañuy dem ba maanaam pullaal bi ñu waroon a pullaal seen borom kër dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg lu tax parce que chaque jour yaa ngi théâtre kat yaa ngi koy théâtre film kat yaa ngi koy film rajo yaa ngi koy wax journal yaa ngi koy wax dem nañ ba léegi góor ñi mais dina doon soxnaan ndax boo dooree ñu léegi tey góor la jigéen la ñuy gën a far yooyu day dem ba jigéen ñi daf koy may fit da koy may fit léegi fit boobu moo koy may nag su góor bu jigéen ñi am fit jigéen ñi am fit du jabar te gis nga yàlla dafa sàkk baay aadama def ko mu nekk góor gu dëgër ah def ko ni mel na mu war a mel mu ñoon ca kaw nekk góor xale lu góor nekk xale lu góor ah njool ca kaw mel na mu war a mel rafet ah xuural baatam génne guddi gi mu ni fàtt saxal ko ay mustaas nga xool doole ji mu ni kër kër naaral ndax day ndax mu sax góor gis su loolu amee day sax góor gis nga góor su melee nii rek sax góor waaye góor bu yor melokaan wi doon du sax di góor jigéen lay sax borom bi jël jigéen nooyal aw yaramam simple loolu moo def ko mu nekk koo xamante ni ñuy góor di am ñu ko am ko saxul jigéen saxul ak mustaar parce que yooyu yëpp dafa góoree gis nga yi góoree saa bu nekkee ci jigéen jigéen ñoom du mën a sëy yi jigéen ne su nekkee ci góor góor dootul jëkkër saa yoo mu war di waaye mu jëkkër kon yooyu jigéen ñi bàyyi ko xel xam ni moo xam ca kontaan loo ko dem këram ca na muy soloo ca wax ya muy wax ak moom fexe it xam suuru lañ wax dugal mbégte ci biir xol léegi nag foofu ku nekk yaa xam na ngay toñee sa bopp ginaar islam néew diine ku nekk yaa xam na ngay sa bopp ginaar nan lay fexe ba kontaan loo saa waaye kenn ku nekk am na lu gën a bëgg am na lu gën a bañ naka ngay fekki koo xamante ni gaañ nga ko ci xol gaañ ko ci xol ba xol baa ngay jaral di di di di di di di naaj ci ah ngay dem yow loolu loolu mënu ne déedéet da ngay tàmbale ca xol ba fexe ba am fa place ba noppi génn ca na may solo ca na muy waxee moom ca na muy jëflanteeg moom ca seetal ko la muy lekk ca la muy naan loolu dafa bokk ci sunu salafu saalih dañ daan dénk seen jëf bu dem sa yi sàmmal ko waxtu lekkam sàmmal ko waxtu naanam bu mu wax nga tontu ko bu mu ilaa yooyu ay yëpp la yoo xam ne li gën a mën a énervé loolu nit ba mu wax lu mu waxul loolu loo xam ne war a lekk lekk war a naan naan war a nelaw nelaw wala yu demee noonu yooyu mën naa gaaw a def jeexintal ci nit soppeeku kon jigéen ñi góorgóorlu ci bunt boobu ca na muy soloo ca na muy melokaanoo ca na muy waxee ak borom këram ca kàddu yi neex ya nga xamante ni xam nga ne wàcc ba pare sonn ba bëgg a yàkkamti wala dem sa kër loolu xam nga musiba la ndax bu fekkente ne yow loolu dégg ci àll bu gën a naqar ngay jël ci tëdd maslaa yi ngay am ci damaa toog ba yàgg ma ne gis nga jigéen ñi contesté yi ak jigéen ñi liggéey ci hôtel yi ak bureau yi ak secrétaire yi ñi ngi neexale ñi ñuy liggéeyal wallaahi buñ ko defaloon góor ñi te kenn dootul jàppati kenn dootul jàppati ak yow koo xam ne simple simple patron kese la tàngalal la kafe tap tap tap nga daaw tàngal kafe ñëw te li may wax ñu ngos wa ñu juree xam nga tap tap nga tàngal kafe ñëw affaire bu tuuroon eh eh pardon maa ngi jéggiroon tamit tamit fii daal di pomp gaaw mu gën a gaawee gis nga bu paree nga leen indi koy musuwaar tegal ko fii ah demaa ne ndox mu seet am na jus bu amoon bi bëri ko bi te te kooku leen na ngeen seq mooy weer nee ko fay defaree bokk na ci sarti patente yi mooy amul nit tam kanam buñ la fekk da ngaa war di sii dugg kati avion yi ak ñi nekk ci biir oto yi xam nañu lay wax maa amul mer amul ñëkkal bu nga nekk da ngaa war di si ah waaw loolu la bëgg est-ce que sax nga xaaral ci biir hôtel bi ndaw si mën a daw ku sa jabar ku sa dara da nga xam lan ndox cuuraayal la sa néeg yëpp la jabar lépp la lay defar ànd ak nga si ñëpp di la leer loolu bu góor ñu doon seen biir kër dafa nga ne xay dana amat xay du am waaye problème mooy loolu mënuñu ko am léegi lan moo tax nit ki effort bu mu mën a def effort bu mën a réussir ca loola muy def ngir da caa seen du fayak patron allahu akbar moom la ko suñu jigéen ñi ñu góorgóorlu ñu ngi seen ci fekk yàlla maa inda allahi xayru wa abqa la fa yàlla moo gën te day des kon loolu jigéen ñi bàyyi ci xel moo tax loolu nag bokk na ci mooy jigéen ñi su melee na mu war a mel day mooy ko nag kasar tasaqu wa tabarru wa tashakki jàmbat ak jàmbatu jigéen ñi gën a soog ci jàmbatkat yi bokk na ci mooy jigéen ñi jàmbatkat ci jigéen ñi mooy jigéen jàmbaarkat boo xam ne boo ko fekk tax lii ma dégg mu amoon lii ma te diw ba ma defee lala ma eh ay ma ko amoon muy mel ma ne sama daal moom yàqoon léegi maanaam nit ki buy wax na wax lu tolloog lañ am aajo rek mu yàq waaye jàmbatu ak jàmbat dafay gaañ xol gis nga góor bu am jom bokk na ci li ko gën a mën a gaañ mooy mu xam soxla yu mën a faj mu xam soxla yu mën a faj nangam ji war naa ko def gis nga war a faj fajoo daa metti de jigéen ñi xamuñu loolu nag waaye góor ñoom xam nañ ko ndax ñoom ñoo béy woo waaye war a faj fajoo dafa metti su ko defee loolu jigéen ñi ci mooy dañu ko ay jàmbat yu bari da ciy da ciy da ciy baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci may chance jigéen pour muy bégloo borom këram yonent bi ne képp ku tukki bay ñibbisi bul bett sa wàgg bul bett sa wàgg rawatina guddi nee na nga def ay jumtukaay ba léegi yow xam ngeen téléphone yeeg yóbbal day jot bu njëkkoon moom da ngay ñëw yóbbu yóbbu yónni benn waay mu waru pasu daw waxee la ko way lan nga dem ne xaar ma dem jaar te jàkkale julli ji bala ngay julli bay ñëw da ngay ñëw dugg julli bi dem jàkkale wala dem sa dëkk kon l'islam wallaay mbokk yi jigéen ñi war na xam l'islam bëgg na leen trop mi ngi leen di may chance ñu waajal seen bopp ngir gën a am place ci seen xol borom gën moo tax ñu teel a yow bu góor nga ñëw nekk sa borom sa soxna bu ko defee yàlla bi nee na karasoon mën a solwaat ka ka ka ñëpp ko doon kanam mën a mën a màgg yu mu wax defarwaat yooyu ci yi nga xamante ni dagal na ci biir biir kër jigéen ñi war ngay jéem di def effort waaye jigéen ñoo xam ne xam-xabaaral yàgg yàgg ci aram nag dara bu doon ko jéem luñ ko wax xamul loolu loolu si mën a def ci li may wax nii léeg-léeg nit mën na koo dem jàpp ni saboté la rek déedéet du saboté de ay dañ koy dunde ay dañ koy dunde am na jigéen ñoo xam ne sa waay danoo yaabaara yaabaara ba daanaka loolu moom xamul comme da comme comme li ko war a di tuddee comme sagaru minage mor nga minage kaar nga xam ne bu xësee tool moom fi mu baax fa la naan baax rek loolu baaxul déedéet jigéen dafa war di jéem a seet yan stratégie lay jaar pour am borom kër moo ne bu fekkee ragal yàlla nga ci jublu ñi la gën a ragal yàlla dañ ko doon def Aïcha radiyallahu anha benn bis yonente bi dafa tàggoo dem xare Aïcha nee na ma dem marché seet benn tissu bu rafet tissu boo xamante ni boo ko defee rilo xam naa ne góor bu ko xool dina kontaan par nekk te tissu mu jënd dafa am ay dessin Aïcha ñëw def dessin yi yonente bi dugg si rek fël kanam Aïcha ni ko ah man mooy nga kontaan doomu laa ci doon jublu rek mu ne ko malaaka yërmande dugg ci kër bu amee dessin Aïcha nee na ci laa daal di yóotu rilo yi xaaj ko ay xaaj defal ko ko ay ngegenaay gis nga même ba léegi dafa bàyyi de ba léegi bàyyiwul même saa ci waaye ay ngegenaay la ko defal moom muy ci muy muy ci xoolal suñu biir kër yi saway yi yoo xam ni ay bonkari ci daan lañ dessin yi yoo xam ni malaaka yërmande ko bu ko defee yow nga ko desee seen baax loolu fu malaaka yërmande du ñëw yow saway ndoxee baax def foofu da ngay def ab da ngay def effort ba sonn daanaka mel ni garab bu teg ci naaj rek day seey rek dara la du dee kon jumtukaay yi waral yërmande yàlla du yegg ci jigéen ñi da koy joxe daal kon gis ngeen Aïcha ni mu ragalee woon yàlla waaye mi ngi doon def ay effort pour kontaan loo yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ci bunt boobu bokk na ci melokaani jigéen ñi sëy kan mooy muy fexe bis bu nekk nu muy amee xol borom kër yonente bi alayhi salatu wasalaam ci xadis boo xam ne mi ngi ci almuwatul awsat imam tabarani xadis bu anas ibn malik moo ko solo xadis la wér cheikh nasir albani wér la ko yonente bi nee na ala uxbirukum bi nisaikum il janna xanaa du ngeen ñëw ma xamal leen jigéen ñi nga xam ne ñoom bu ñuy dee di tàbbi àjjana allahu akbar maanaam jigéen ñoo xam ne ñi ngi ci àddina yi waaye ñoom ñoo nar a nekk soxna yu àjjana yi nisaikum il janna mooy ay soxna lañ doon doon di àjjana waaye ñu ngi fii déewagul loolu tamit saxaaba yi moom sax nag dégg ngay sànq subhanallah alazim maanaam yu mel nii nga xam ne moom moo nekkoon seen objectif bi gën a rëy ala uxbirkum bi nisaikum fil janna xanaa du ngeen ñëw ma xamal leen soxna yi nga xam ne ñu ngi fii waaye bu ñuy dee di tàbbi àjjana ndax ñooñu ñoo yeewee tàbbi àjjana mu njëkk ca kullu waludin ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي بيدك لا أحتحل بغمض حتى أرام yéen yàlla bi nee na jigéen ñi nga xam ni méritoo dañ tàbbi àjjana dañu ngi fii mooy kullu wadud jigéen joo xam ne ñu ngi nobel lay doon al wudd mooy nob jaala baynakum mawaddatan wa rahma wut bu tekki wul bëgg déedéet ndax bëgg bu góor dafa def morom bu góoram te góor dafa def yaayam ak baayam waaye nopp baat boobu mooy baat bu ñor ba ba war a dox ci diggan diggante jëkkër ak jabar warul yem ci bëgg kenn déedéet mbir daa war a yem ci nopp léegi nag moom saa ko la nekk góor bu nekk war naa xool ndax sama war na moom ngeen jigéen bi nekk war naa xool ndax borom kër moom dama ndax jigéen boo xam nag dama nag gisul borom kër moom la échec gën maam moom moom daanaka dana yomb moom ndax amul moom ndax bu dee bëgg doon mën na laa bëgg bëggaale keneen ak ku mën a doon waaye nag yéen ci yàlla dañu jigéen ñuy nobee lay doon maanaam moom bu amee borom kër du ko gëmee da koy nob du ko nobal te ki nit ki ki mu nob lu mu mën ci dëggal ko dana ko def daanaka day mel ni kuy tarbiyu rek xam ngeen kuy tarbiyu moom li waa ji bëgg lay def lam bañ lay bàyyi mosu leen a gis kuy tarbiyu koo xam ne da ngay ñëw def sa baax na maanaam di tarbiyu ba noppi yow lan lan bañ loolu ngay def lan bëgg doo ko def loolu mosu si ko gis yow diplôme doo ko gaaw am moom kon kullu wadud jigéen joo xam day nome day nom borom gërëm lool wadud day am ay doom loolu nag borom xam-xam dañuy wax ni yàlla moo koy séddale waaye nit ki lam ca am comme cër mooy mu jóg def ay sabab ci faju ci ñaan yàlla ci jumtukaay yiy tax nit ki am loola moo cay cëram moom mu ni ida rudibat su ndaw si menee aw usi'a ilayha wala ñu ñaawal jëm ca moom aw xadiba zawjuha wala borom këram mer bu mu ca mën a doon rôle bu muy joué mooy haadihi yadi fi yadi sa loxo danañ borom këram sa loxo borom këram jox ko loxoom mu ne ko fas yéene wu ma koo ceeb ci mbaama yàlla bu jëg tey lu da laa kontaan loolu waa moom sëñ bi ah li nga sànni de waaw li nga sànni de boobu amul de waaye xam naa ne day ah pourcentage bu bëreetul de mais dana la jàpp loxo laa aduuqu xumban tey moom bas yéene mu maa tëdd laa attaxilu bi xam ko ba di moom ruurum loxo bi dama ko tee fii kontaan lépp lu mu laaj dund na xariwul yàlla dinaa la ko defal ngir la kontaan léegi moom daanaka daal yaay mujj dem ba xam ne rek kilifa nga kilifa nga toppante nga wàccaat góor ñu bare bare bare bi dem soo amee yaay mujj dem bu yàgg nga wàccaat parce que da ngay xalaat yu bari da ngay xalaat njaboot yi xalaat goro yi xalaat ñi yu bare bare daal nga wàccaat waaye jigéen ji mu ñëw wàcc raam ci sa kanam jéggalu la bu njëkkoon da ngay seetli dem di dugg guro wala tàngal ah wala seet la nga gën a bëgg ñu toggal na ko ah jigéen ju ne am na façon yi ne xanaa bu yaakaar ne bii moom rafet na wala bi borom kër bu juróom mu sol booba taajee ko lekk ila axiri waaye ndeysaan ma àlla sa chari déedéet kenn ku ci nekk da ngay jaay sa morom wala ku fële su bokk jigéen bu bëri la ci ay ci këram gis nga jigéen saa bu borom këram xamee fulla mën na sëy su borom këram xamee mën a tontom dangaa la mën na sëy waaye sag naqari deret bu ko sa borom kër xamee d' accord naqari deret waaye moom na nga fexe ba ne bu sa borom kër xam comme moom mënu ko xam maanaam cër bi sa borom kër war a am ci naqari deret mooy dégg naa ne ñu naan diw daa naqari deret man de gisuma ko man borom kër yi loolu la war di wax maanaam nit ki mën naa naqari deret amul problème waaye nag bu bu ko borom kër yi xam man ngaa naqari ay wax bu ko sa borom kër xam man ngaa naqari jëflante bu ko sa borom kër xam moom moom def ko ñeneen ñi la moo ko maanaam da ngay mel ni ngay jël si bi ca biti waaye nooy nekk ci sa kanam borom kër subhanallah kon yu mel nii boo ko seetloo ak jigéen ñi nga xam ne tey sa waay góor gi de boo doon mer fi ne téeméeri at dan lay bàyyi boo ko def boo boo déglu du ma dégg foofu ma la dégg ah yaa mën a mën a déglu du mooy ko def ma du mooy faale la mooy fekk yow li ngay def ay danse yu rëy la maanaam da ngay gis jigéen joo xam ne borom gërëm lay du mooy mer féete fale moom du mooy féete fale ma ne boo déglu du ma dégg waaw soo yaa ngi nga xam ne gën a ma lay gën a bàyyi ak foofu la fekk ndeysaan yaa ngi toroxal li nga jot a jur di yàqal li yëpp séenu gis nga nag ma wax ko mu jeex nag mooy jigéen bi yëpp ñàkk jom ci kanamu jëkkëram mën na sëy wax ñaa ko xulaasa ko kaw jigéen fi yëpp ñàkk jom ci kanamu borom këram mën na sëy amal jom nag fu ne waaye sa borom kër moom bu mu xam sa jom bu mu xam sa jom bu mu xam sa kulla bu mu xam sa naqari deret bu mu xam sa dangaral foofu saa bu amee daal jàppal ne yow ko moom xëy na amal yaakaar na daa moo ko ni saa yi am jënd bokk na ci melokaani jigéen yu baax yéen yàlla bi nee na xayru nisaikum alwadudu alwaludu almuwaatiya almuwaatiya ila taqina allah wa sharru nisaikum almutafarrijat almutaxayilat wa hunna almunafiqat la yadxulna aljanna minhunna illa mithlu alghurabi alasam yéen yàlla bi nee na jigéen ñi gën ci seen jigéen ñi mooy jigéen joo xam ne day am doom day nobe tey nag almuwaatiya day neex dara mu waajee mooy jigéen du neex deret koo xam ne dafa neex deret lépp lu borom këram jàpp ni boo ko defoon tey dana mer bu ko kenn defoon mer waaye borom këram moom moom bokku ci moom moom bokku ci programme bi moom daal moom lu mu def baax na féeg neex na suñu borom day neex deret lool neex a jëflante lool nga xam ne góor bu wàcce ne yàkkamtee ñibbi si lool alwaasiya day mën a soulager borom këram alwaasiya mooy koo xam ne borom këram nekk ci feebar mbaa mu nekk ci ay problème mbaa mu nekk ci ay jafe-jafe mbaa mu nekk ci ak ñàkk ca peggam lay toog di ko tuddee ay solution loolu mi ngi am de mi ngi am ba tey ay jigéen yoo xamante ni dañuy xam ne seen borom kër ñu ngi ci ay problème ñu fas yéene jaay seen i matériel moo xam or la moo xam nangam la pour soulager seen borom kër mi ngi am de dégg ma ko dama kaa xam dama kaa gis xam ngeen ne sama xamal ko maa leen am na góor yu ko def ñu seen soxna de soo gisee may kii jox misaal yi ñuy dund wala seen yàgg ya mooy léeg-léeg nit mën naa bëgg góorgóorlu seetaan naa ko ah ñoo de dañoo sara masala ñoom moom lii bal bàyyi waaye moom lay waaye moom fekk déedéet am na salaf yu fi nekk fi nekk nii ñoo xam ne ca fa ñoo ne tegoon seen tànk lañ teg seen tànk ci buntu sëy am na ñoo xam ne dañuy jaay seeni or am na benn soxna boo xam ne bi mu amee jafe-jafe ak borom kër ñuy waxtaan nee na ma li ma yëkkati ci sama alal jox sama borom kër ngir kër ma njabootam ak nangam man gëm naa ni bu bare woon ba fay ma ko mënu ma koo fay mënu ma koo fay denc naa sama xaalis mu dem mu jël wax ay wax yoo xam ne wallaay yi nga xam ne kii yàlla baaxal la ma ne ko moytu seytaane yàqal la ko ma def ko waaye ko yàqee denc wala ko ko amal yu mel noonu mi ngi am koo xam ne ay ooram la génne ay ooram jaay ko jox borom këram ni ko demal nga yeggale sa kër ndax ñu mën faa jóge loolu am na koo xam ne ay ooram la jaay paasal borom këram ngir dawal na tukki mission ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey doxaat yi xam ne li may wax ndax ñu bari danañ jokkoo ñoom ci yeneen masala yi nga xam ne yow da nga ciy jàngaale après yaa ngi jàngal nit ñi waaye yaa ngi ciy jàngaale gis nga mu ne jigéen la jox ne soulager borom këram mu amee jafe-jafe waaye ki gën a bon ci jigéen ñi mooy jigéen yoo xamante ni mu tabarrija day war a war a jëlee la waajal wax la na walla ki nga xam naa wax si boo ko fekk du gën génn rek xëy na laa ko tey moom mu tuddee ma ne ko ah yow dañu ko tuddee muy dalool walla ki nga xam naa ko xamante ni mu boo ko fekk naan walla génn kat doon dugg la génn dugg génn dugg rek demal dikk yéen ñoo amee jigéen ñi gën a bon ñooy jigéen ñooñu al mutaxayilaat ñoo xam ne boo leen fekk ña ngay rëy rëyloo ka wala yu nekkul ca biti waxul nan munaafiqaat nee na ñoo ñaay naafeq yi te it lu ngeen ci xamul laay duggul na janna duñ dugg àjjana wala laay duggul jannata minhul na ñuy dugg àjjana ca ñoom illa mitlul xurabil asar baaxal bu ay tànkam weex lu toll ni lay la weex sànni baaxal lu toll noonu mooy tàbbi àjjana ca ñoom subhanallah xoolal boo demee ci àll bi baaxoo ñi li ñuy bari bari bari da ngay seen couleur bi ñuul guub muy dem seen melokaan woowu c'est très rare nga gis te boo xam ni bég ba daa weex wala tànk ya daa weex wala laaf ya xam nga loolu bariwul sax yéen yàlla mu ne lu toll ni la weex ca gurbu baaxoon ya lu toll noonu naa dugg àjjana te jigéen ñi wax loolu mooy juróomi junni yoo wàññi dina ci am ñett yu laa gaa ci gisaa loolu xam nga ne kon mooy lu daa daa jël ne loo xam ne jeex kon loolu jigéen ñi war nañ ci bàyyi xel war nañu wax jigéen ñi bari leen lu ngeen di saraxe parce que gis naa leen yéen ëpp sawara bokk na ca la leen waxoon mooy da ngeen di weddi njekk gis naa leen yéen ëpp sawara lu xew mu ne ndax pour ne la assuré da ngeen di weddi njekk ndax góor bu la defar lu dul jeex léeg-léeg nga gis ko rek dugg mën na xew léegi musuma defal dara maanaam wax jooju ni mu nekk ni mu ñàkkee nekk dëgg sax daa yéeme rek yow defe ngeen nit mën a laa tàkk ba ngeen toll ba ngeen di amee jafe-jafe ngeen defoon yow bu la defal loolu dara dana ko toog doo ko toog xëy loolu kay wax ku mer dara waaye defaluma dara moom buy wax xanaa kay da nga naan nangam defaluma ko ak nangam wala waaye musoo maa defal na te léeg-léeg nga gis jigéen di ko waat nag léeg-léeg nga gis ku waat ci yàlla ni musuma defal dara mi ngi nii yooyu yooyu maanaam yow yaa ngi tàmbali sa bopp ci diine alkane parce que loolu mooy waral sa ak texee di ak mën a tàmbi sa rek bokk na ci melokaani jigéen ñi baax mooy adamu taqsir fi zawj mooy wattoo néewal sàggan ci àq yi borom kër foofu nag tomb la boo xam ne jàpp naa yi ni mu guddee moom ak àq yi nga xam ne yàgg nañ koo dégg defe naa loola rek waroon naa mën a doy benn jigéen ñëw na ci yonente bi saa sallam ci xadis ak Usayd bi Mihsan mu jëlee ci mbaayam mu ndaw mu ni yonente bi dañu waaw ndaw si azatu baax zawjin ant beneen bu ne azatu baaxlin ant mooy yow ndaw si ndax am nga jëkkër ndaw si ne ko waaw am naa jëkkër tey mu ne ko ah waaw yow noo defal sa jëkkër mu ne danaa jéem lu ma mënul ak lu ma mën rek ndax mu kontaan rek mu ne ko ah defal loo mën ne te nga xam ne sa àjjana nga sa sawara allahu akbar noo defal sa jëkkër mu ne xanaa jéem leen di ko kontaan loo mu ne ko góorgóorlu de da nga xam ne mooy sa àjjana mooy sa sawara fa inna hu jannatu ko naa def mooy sa àjjana mooy sa sawara mooy man nga jàttaat bi àjjana mën nga jàttaat bi sawara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn baay daa ànd ak doomam ñëw ne ko xam nga lu ma andi mu ne ko dee mu ne fii sama doom la dama ko bëgg nga jëndal ma lànk ñu si yonent bi gestu daal suñu ko ah li mu wax am naa mu ne ko waaw mu ne ko lu tax bëgg laa maye nga bañ mu ne ko man ne li may dégg ci ak borom kër diis na ci man diisaay boo xam ne bu bëggoon saa fi sawar dama ko jëj kas ni ko wax na ci kanam yonent bi ne ko ah xamal ni jëkkër day su ay bakkanam ak gémmiñam doon génn sa sa deret nga di ko wanaasu di ko muucu di ko wanaasu du tax nga fay ko àq yi nga ko amee la hawla wala quwwata illa billah ndaw si mu ne yonent mu ne ko loolu loolu baal ma jëkkasi ni ko ci kanam yonent bi ne bàyyi bàyyi am na ci droit am na ci droit bu yonent bi ne mën a accepté ndaw sa loola yi àq yi muy ci yéen yàlla bi nee na bu ngeen xamoon yéen soxna yi àq yi ngeen amee seen borom kër da ngay taaj reer ba noppi taxaw xadis bi xadis bu biir muy da ngay taaj reer wala lekk nga taxaw maadaama achaaku ak lekkam mi ngi ci kanam mi da ngay taxaw téye ko mel ni ku may gaase pour mu lekk ba pare nga doog loolu waral boo gisee ñu njëkk ñoom day sàmm lu mu saa taaj lekk da ngay gis da ngay taaj ba pare di ñeexal borom kër bi ngir moomu lekk yow doon nga bokk moom lekk sa fam loolu lii moom dañ naa ci bët moom ak li may nekk nekk ba ne dem naa ci bët ci àll moom muy am nga xam ni da ngay jigéen ñi day bàyyi ñu bëri dem seen borom kër gi lekk ba doyal bu desee maccat loolay wàllal bu desee jiita mooy wàllal allahu akbar moo tax it ci dañ ko gisee day gis nañ ci ay kéemaan de gis lii may wax nii moom lu dégg bët la moom lu dégg naa du sañ wax lu ani moom kay raaytu la moom gis naa moo tax it yàlla wërsëgal na leen ay njaboot yoo xam ne macha allah la quwwata illa billah kon Aïcha nee na mooy yéen jigéen ñi ndax xam ngeen seen àq yi ngeen ameel seen borom kër mu ne gis nga bu ngeen ko xamoon di ngeen seen borom kër day wàcc ay tànkam bënd mu ne nga sëggal sa lekk di ko fonkee sa lekk mu ne doo ko fonkee moo wax sa lekk ko fonkee yéen yàlla bi nee na benn jigéen ci àddina ah du lor borom këram fekk borom këram ci waa àjjana la war a bokk lu dul soxna yi àjjana dañ naan ko su bokkul wala yow ku bon yow ku toskare nga yow yàlla na yow kii yàggul ci yow kii nee nga dee nga takkal ko moom mu ñëw fii ci ñun subhanallah ñaata ci ay wóolu la ay jigéen di bàyyi ko ci jigéen àjjana borom xam-xam yi ne ki ci gën a garaaw nag mooy ab borom xam-xam ab jaamukatu yàlla ab ab ab ab nitu yàlla maan ñi nga xam ne am nañ cër fa seen borom nee na ñooñu ñoo gën a garaawle ci soxna yi ka nga xamante ni mooy seen borom kër kon bokk na ci àq yi mooy jigéen ñi xam àq yi mu amee borom kër bi ci góorgóorlu bokk na ci àq yi nga xamante ni matal ko dana wane ni jigéen ji kat moom jigéen ñi say kat dëgg la mooy bañ a sonal sa borom kër ci wàllu joxe joxe nga xam ne loolu yàlla yéen yaay woon na soxna yéen basal in kuntum turidna al-hayata ad-dunya fata'alayna léegi léegi wàcce wax na léegi léegi usal wax na sa wax ko dem seen bàyyi da ngeen di wax yonent bi yokkal dépense bi dugg na bi génn na bële kaay leen kenn ku ci nekk nga wax lan nga aajowoo ci bagage yonent bi jox la ko beneen bagage si bàyyi boobu ñu xoolee boobu yi bokk ci liñ dëgëre ak yàlla ñu mu fonkee yonent bi waa këram nga xam moo leen tuddee ahlal bay innama yuridu liyuzhiba ankumu rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira yàlla mooy lépp luy gën gën dama leen ko bëgg a baaxal lépp luy laabal dama leen ko bëgg a defal ñooñu suñu borom mu leen bu fekkee da ngeen war a fontoo yonent bi ci ay joxo joxo def na kenn ku nekk takkal sa bagage ka wax lan nga soxla ci ay jumtukaay yi defal la ko benn lan nga sa baax wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daar al axira bu dee yàlla ak yonent bi mu ngeen bëgg ak kër alaxira ñu fay leen man nag ku def lu baax it danaa ko fay fay bu rëy ah yonent bi ne Aïcha alal xam ay say naka naka yonent bi dafa laaj sa baay gis nga yonent bi mag la nag yemul ci nekk mag mu yàlla yónni kese kese kese xam nga ay sa boppam gone la te gone xam nga daal gaaw ba dem gaaw a gis boppam man loolu moom boobu waxee rek mën naa génn dem waaye xam na ni bàyyam aw bakkan bu ko digal mu lu baax mu ne ko demal lii sama sabaay loolu sabaay wax rek defal loolu xam na ne bu loolu aw bakkan mu ko la dal loolu te li lu ci jigéen ñi xamul gis nga léeg-léeg yàlla mën na laa wërsëgal borom kër bu naqari def fekk naqari dara dem boobu yow mooy sa texe yow pour nga jaamu ci yàlla pour nga tàbbi ci àjjana yàlla war dëgg la góor bu nay fekk nayam boobu mooy sa jaamu yàlla yow pour nga jaamu suñu borom loolu la jigéen ñi xamul gis nga asma doomu abubakar subayr dafa naqari woon dara naqari dara tàng piir naqari dara su ko tàngee moom doon si wax la subayr moom la meroon bàyyi la jël waaye leneen asma day mer ba ñëw ci abubakar kii nan nga mën a duma def nan nga mu ne ko asma subayr boobu baax te jël ci wala la ko ci waa ajar demal nga toog nga sëyal bopp nga jaamu yàlla si moom loolu laa ci xam xaw ma ci leneen waaw waaw waaw xoolal malgré que li mu jàmbat moom foofu ko ne ko amoo dëgg moom nangu la ne sax xam na dëgg sonn na waaye li muy sonn sonn nekk nangul kooka ak jaamu yàlla ndax amaan na góor gi la yàlla boole ci waa yàlla lay bokk xamoo ci dara fekk boobu jigéen ñu bari nañ sax amuñu ko jàpp na ne beneen te lépp li gën a soox mooy bëgg jeexal nattu bu yàlla jeexalul gis nga bis bu bëggee jeexal nattu bu yàlla jeexalul ah su boobaa xam ne mënu dañ def taal nga rek du ko te su boobaa di nga amaat yeneen yu topp waat yoo xam kon suñu borom bokk na ci li mu tàggee jaam yi mooy walladina ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu bokk na ci jaam yàlla yi ibadu rahman mooy duñ yàq waaye lu mottal ci leen nag bay joxe loo xamante ni loola yées na bokk na ci melokaan yi nga xamante ni day wane ne jigéen ji kat jigéen ji sëy mën a sëy mooy ixtiraamu zawj mooy ormal sa borom kër fonk ko amaana xëy na fonk boobu mën na caa jaare tënk mu jeex fonk sa borom kër mooy def ko kilifa bañ ko def moom jigéen bi bare bare bare bare day saan bokk na ci leen yàqal mooy dañoo jàpp ne seen borom kër seen moo am na fekk déedéet du sama am ne borom kër xam nga problème bi bi nga bi échec bi mi ngi tàmbalee ci fa ma tàmbalee woon mooy jox yàlla gëdd gis nga yàlla gëdd bi ñu ko jox muy xaanitaat yàlla moo ni ak jàll ko war mun a ala misaal yàlla mooy góor ñi maa leen di bari kilifa wala mbir mi yow kii faluñu ko woon woteeluñu ko demul présidentiel demul ko def député moom yàlla moo ko fal yàlla mu ne ar rijaalu góor ñi mu ne xawaamuuna ala nisaa waaye dafa nekk kilifa yi kii loolu def dëgg yàlla te bokk na ci ngëm yàlla mooy kontaan ci yàlla def mu ne bima faddala allahu baadakum ala baadin ngir yàlla ngëneel yi nga xam ne da koo jël ñenn ñi mu ëppale ñeneen ñu ëppale seen borom ay ngëneel wan maa am faqu tey nag moom laa féetale mu joxe ca la tegee fa saaliha gis nga ne aaya jëm fii la ko tegee bi mu noppee ca wan ni góor kilifa la mu ne fa saalihaat jigéen ju yiw dama nag sëy te nangu kilif te ba jëkkër xaalitaat day nangul yàlla ba noppi xaaral naa ko leen day bi nangul borom këram déggal ko suturaal ko ko surtout nag la ko sa borom kër ak ay yoon ndax xaaral naa ko leen day loolu ci dugg gis nga jigéen war naa fexe ba li muy dund ak borom këram yaay ci ko jur sax mu am man maa xam jigéen yoo xam ni daj na ci sëyam loo xam ni su ma ko duggoon tey ñenn ñi ne dañ ni est-ce que kooku ci jamono jii la doon dund ndaw see ma wax ci laaj mu boppam mu ni ma lii li tax nga jot ci mooy laaju masala ne sama yaay ji ma juboo ko ndax suturaal sama borom ndaw see ma wax loolu mu ni ma lii sama yaay xam mu ni ma lii sama yaay xam bokk na ca lam ma wax sëy naag borom kër ga ba teqali ko ab diir bu yàgg mu ne daal daal sax mosuma ko ne daal daal wala benn yoon mosul am mu yëkkati daal mu ne yii ma yëpp woon nga andiwaat ak yeneen ak yeneen i problème yoo xam ne ñu ngi dund mu ne ma lii masala tax na jot ci ne sama yaay ji ma jiwoon ko ma jàng ci ni xam xool nit ak ñi ko yaayam jege parce que suñu la dafa baax lu dul lu mënta ñaan moo tax borom xam-xam di wax ni maanaam nit ki bu fekkente ne lay xew di jël ci ma borom këram bu dul aajowoo bu ñëw ba jéggi dayoo wala laaj bu matala wala yu demee noonu mu denc ko jaamoo ko yàlla mu gën ci moom tey nag subhanallah wala nga ci marché yi mu dañuy waxtaane nga dem ca mbooloo mu dañuy waxtaane nga dem ca mbooloo mu dañuy waxtaane rawatina di waxtaan day waxtaan yi gën a garaaw yonent bi daa génn benn bis fekk saxaaba yi ni mënul mënul kenn ku nekk yi wax yonent bi génn rek ku nekk daal di jekkas di ko wax xam nga ñuy wax lu jàllul boobu boo leen bettee rek ku nekk noppi yéen ci biir mooy yéen daa mel ni yéen da ngeen di waxtaanee li ngeen di seqal seeni borom kër de. gars yi ñu def mooy aramal xaw kenn ku ci nekk sën kenn ci jigéen ñi ne wax leen yéen a ngi nii ñun ñëpp dañ doon waxtaanee loolu lu ngeen ciy def bu ngeen ragal bu ngeen ragal yàlla ngeen ragal yéen ci yonent bi dañ doon waxtaanee loolu yonent bi ne bàyyi leen loolu gis ngeen loolu ñu ngi mel ni seytaane bu góor seytaane bu jigéen dàqante ba ca marché bi ñëpp di leen xool ñu jaaxal ci seen bopp gis nga tey ñaar ci ay secret yi biir kër mooy génn ah te problème mooy léeg-léeg nag xarit bi nga gën a wóolu mu koy wax mu dem jotali ko ca des ka ca des jotali ko ca des ndax nit ñi léegi di xel laal ci noor la da koo jox mu seeg jox sa jox morom su ko defee lu mel noonu mën na ñàkk nit ki bu fekkee ci buntu laaj la na seet borom xam-xam bu mu wóolu te borom xam-xam rek la kat yàlla su fekkee ci buntu diisoo la na seet ku ñor te xam mu wax ak moom te kooka yëpp denc ko benn doy na xam bu mën na ñàkk ñaar ñett ñu ko mën a jël léegi dafay dem ba nit ki léegi day préféré bu tëddee ba guddi mu waxtaan ak jege naa mbaa ñii yow dañu waxtaan ak kenn ndax la wax aussi kon yu mel noonu bokk na ci liy wane jigéen ju baax mooy respecté borom kër yonent yàlla bi nee na laa aamuru ahadan an yasjuda li ahad man du ma digal kenn mu sujudal kenn walaw amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha su amoon kenn ku ñuy digal mu sujudal kenn mu ne jigéen lañ daan sujudal sa jëkkër mbokk yi sujud mooy jaamu yàlla li gën a rëy ci jaamu yàlla yi ndax cër bi gën a màgg muy jël parce que xar kanam ngay defal yàlla mu ne du ma digal kenn mu defal ko kenn waaye su ko kenn doon defal kenn borom kër la ñuy wax soxnaam mu sujootam loolu mi ngi ko waxee woon ci bu gars yi di kii ko dañoo gis ay buur ci ay jot ñoo xam ne seen i dag nañ leen sujootal ila axiri yonent bi wax loolu sallallahu alayhi wa sallam ca la waxee woon xadis booba jigéen bu lor borom këram jigéen àjjana yaa koy wóoloon di ko wax ay musiba naan ko musiba yàlla ndax bi sa kaw yaay kanale ko kon ci gàttal mbokk yi ñu xam ni lay wane ne jigéen ji sëykat la mooy lay jox xol borom këram jigéen am na góor buy naan sàngara te bu naanee ba génn xale di ko dal mu ñëw faxas ko lay sànq dugal ci biir ñëw subaar ko sànq sànq dam sol daal noppi li may wax nii lu am la man itam ko nekk te defe naa ne tey dañu ci ñaari waaye yoo xam ne daanaka benn bokk ci ak morom la defe naa mos naa fee nettali benn waay boo xam ni benn borom xam-xam saa yu musir moo borom nettali ci Saoudia nee na waa ji dafa xëy rek jabar ji sa wàllu xàcc ba mu xëy rek dóor mbéy soxna si tàmbalee jooy rek tombe bàyyi ak yaay yi am fu noonu demee yéen a jaar ci cette soirée jëkkër ji daal di yërlu ci bunt bi seen pàppay jabar ak ñaari jabar ñooy bëgg xam nga boobu moom daa garaaw lool te ndaw saa ngi jooy kat xam ngeen waa ji waa ji daal ngàmb sarme rek dem dugg ci biir douche moom fas yéene yaa ngi ngàmb boobu parce que ruus na xamul lu muy def jooy lool ndax si mu toog ci biir douche bi génn rek moom daal ma ngaw daal lool sarme xam naa sang mu jàpp def moom daal mën a toog tam toog rek waaye xoolal ndaw si liggéey bu rëy liggéey boobu ndaw si mu yëngu ba xam ni baayam ak yaayam ndaw si daa dem ca lavabo bi defaru ba njëkk mel ni jooyu sa lu waat ba njëkk njëkkal ubbi ubbi bunt bi bàyyi jege ak yegg si bi ñu yegg see ci càmm sax te ànd na dañu ñëwoon dañoo romboon bi yooyu xaar nañ seet si wàll rek ñu ngi laale seen wax mu ne ana sa borom kër mbaa yéen di jàpp di ko yu moom kay macha allah moom kay moom kii ma ko kay yéen ma ko ñaanal yàlla mu nangam nangam rek borom kër yi di kaay ci bunt bi yéen ah waaw comme ngir kala taxal muy làq su kay def na mu daal di génn ñëw toog ndaw si daal di koy sagal wax ne kii kay moom ñaanal leen ko yàlla góor bu mën a suuree jigéen ñi xëy karawaat nga doon karawaat boo xam ne moo gën a tax seen biir loolu góor loolu loolu xalaat ko moo gën a métti ay loolu loolu dina nga jëloon bare sax ci góor gi di ko góor ci ndigg sax moo gën a seet nee na yàlla ne nag boo dem kër gi daal di dem nag mu ngi ko leen dem marché nga wax booy ko xool boo ko bëgg jël suturaal na ko kon yu mel noonu jigéen na ci bàyyi xel xam ne dañuy def ak jaamu yàlla la yàlla dana ko fay jigéen ji na yëg ne yàlla moo def góor yi mu nekk sëriñam mu nekk njaañgeem mu nekk kilifaam mu nekk borom këram loolu cërëm suñu borom la te it nag nit wër na bañ lu yàlla séddee wala te dafa na maa fadlallahu bihi ba'dakum ala ba'd jigéen mënta nekk kilifa déedéet jigéen mënta nekk njiit yéen yàlla bi nee na lan yuflihu qawmun wallaw amrahum bi baax njiit ñoo xam ne seen mbir jigéen ak weeram ni seen mbir lu baax moom kon góor mooy nekk kilifa mooy sànni biir tomb mujj mooy jeexale mooy ñu xam ne loolu nag su amee dana def ay nataay na si yëpp ci nekk mooy dana cee ngërmal yàlla defe naa neetaan nga ajal dana di ngërmal yàlla ak gis ko yàlla suñu borom defal ko ñaareel bi mooy dafay am xayaatan saidatan tayiba dund bu jaay bu dal nga xam ne wax dëgg yàlla lépp góor boo xam ne nekkal nga ko melokaan bu mel nii wax dëgg yàlla dana la fat dana la fat def gis nga yonente bi saa sallam nekkee Xadija yàgg na ca def yàgg na ca de ñàkk mooy tax bu mën a jéggi de déedéet waaye nag xëy nga daal liggéeyal loo xam ni est ce que xam nga ni góor di nga nekk ak moom mel melokaan boo xam ne même dana am aajo sax dala ko yu soxla misaal bi may joxe maanaam góor boo xam ne ñu ngi yor benn soxla ci misaal yàlla rek moo tax ñaar rek mën naa dem ba ko ñu takk ñaar waaye day day mel ni ko ragal soxna fekk du ragal de yéene maanaam soxna si nag boo jiiñ ay jaraale wala gus lu muy wax kii soo ko def lan laa koy wax gis nga yu mel noonu loolu yooyu yu mat a bàyyi xel la am na suñu génn góor bu ñu dëkkaloo ndeysaan lu mel nii moo ko daal moom daal boo waxee rek am na benn waxtaan yu ma sa def benn saa ñu def ko mu pare ñu toog ñun xale yi ndax ñun la defoon morom mu naan ñu ah yéen seen oustaz bi ngeen indi pour mu ñëw jaxase maag nii di wane ni man benn jabar laa yore mu ni bàyyi leen ko doon wax naa ko yow benn jabar rek nga yore mu ne waaw waaw man yore benn jabar yéen ñu yore ñaar saa mu ne am problème waaye ñoo yore benn yéen ni bàyyi ni xii ndeysaan parce que yàlla yàlla yërëm xam nga yu mel noonu te wax dëgg yàlla kam nekkaloon ak jàmbaar la ndax xam naa kon yu mel noonu léeg-léeg day faral di am beneen bi ci des nag te mooy ba ci mujj mooy mën naa jural nit ki nag mu am jabar bu baaxee te it nag ba xam xam loolu day am ndax wal ba lan fayiwu yaxu ñu dafay si biiran bi wala di xam nga laa xam laa jël jigéen bi nekk war naa sóoraale gërëmal borom gërëm tey su ma faatoo lu soxla gërëm bu baax imam ahmad day nee na umu saalixa ngi nii tëdd de nekk na ñaar fukki at te mosuma ko dencal naa gërëm naa ko ba ci kanam suñu borom ñu ñëw suuf imam surayx ne nañ ko waaw loo wax sa soxna si mu ne xanaa kay dund dañ ñaar fukki at mosuñoo di dund benn yoon te maa ko doon loolu nag bu ñu woon mooma tooñ sax ndax na dund nañ ñaar fukki at te benn yoon lañ ma sa jote te maa ko doon dama ne bu doon ndaw saa ko doon sax loolu lamal ndaw sax mu ne maa ko doon yooyu jigéen war na ko fexe am ci borom këram lu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu taw biir ak dimbal ak yërmande lii mu bañ a nekk lu ñuy dégg rek mu sànneeku waaye mu nekk loo xam ne dafay yekkiwaat yëg-yëg yi waaye soññaat ñu delloo si waat ca la nga xamante ne mooy dund ñu ba suñu borom bëgg ci ñun yàlla yàlla defal ñu taw biir defal leen mu sallallahu alayhi wa sallam